ziyaare leen ñaanal leen dem këram également ci mbokkam mi fii ca Rëbës nuyu leen ziyaare leen xool nu ñu def laata moo seet li nga xam ne moo di doomam yi laata également moo xool ndagam dana jàkkaarloog taskatu xibaar yi yeggee askan bi li nga xam ne moom moo di Euh, naka la dundee woon juróomi atam yi foofu ca tugal ba tax nag tey ñu fas yéene waxtaanee maanaam li nu mel juróomi at lu yàgg la juróomi at du juróomi fan du juróomi weer waaye nekkul it juróomi semaine kon dinañ waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci li nu mel parce que ñi nga xam ne moo di waa jaraaf ñoom ñoo joxe benn caution caution boo xam ne bañ ko xayma dem na ba ci 350 millions maanaam ñetti téeméeri million ak juróom fukk jaraaf génne ko teg ko ci table bi ba tax nag ñu bàyyi ko mu ñëw waaye est-ce que bàyyi boobu dafa di mbir mi jeex na wala jeexul est-ce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy layal maanaam ñoom daañu continuer xeex mbir mi est-ce que ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk ci ginnaam ndax gis ngeen laata loolu yëpp am ay comité yu bëri jot na cee taxaw pour que ñu bàyyi kii di Lamine Diack loolu yëpp daañu ci waxtaanee di woo ay borom xam-xam yoo xam ne maanaam seen xam-xam dafa màcc ci wàllum droit wu sport la ñuy wax waaye wàllum koom-koom parce que dañ ne mbiru Lamine Diack du mbiru sport déedéet dépassé na ko am sax ñuy wax maanaam des considérations géopolitiques ba moo tax tey nag ñu waay borom xam-xam yu bëri waaye laata ma leen présenté dama ci ànd ak sama naataango Babacar jonn di sama consultant ñu ànd saa su nekk nag ah mu may gunge saa su nekk ci émission yi ñuy rafet lu baax teewaayam ah, ci plateau Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh. di kontaan ah, ci plateau lundi. fii la tey mooy nekk. maa leen fi xatal jàppale Babacar <laughs> tey da nga xaw a c'est pas ah, tout cas sant yàlla. sant yàlla ñu mais vraiment début koor gi ba léegi ñu dugg si génn seeg jàmm. di ñaan également lépp loo xam ne def nañ ko ci weer bi yàlla nañu ko yàlla dangul allahumma je crois que téléspectateurs yi amoon nañu lu ñu soxla mm. di taxoon ñuy jóg pour chaque lundi jàkkaarloog ñoom indi leen ay thèmes thème nga tànn Cheikh tey am na solo et puis la image bi ma ko gisee je suis très content et parce que tamit c'est important que image yu mel nii ñu koy garder mm-hmm. parce que c'est vrai c'est quelques secondes mais qui ont beaucoup de sens parce que euh, te si loo xam ne nekkul woon aussi cobareem mhm. am te nañ ko fa lu yàgg je crois que li nga posé am na solo au delà maintenant émotion yi c'est important parce que tamit koo xam ne la kilifa la Sénégal ñëpp ràññee ko mu am solo que bu fekkee doomu Sénégal nekk na si tolof tolof c'est important que ñëpp mobiliser mhm. te loolu la ñu seetlu si euh, toutes les couches de maman muy euh, la presse sportive ah invité muy avocat yi ah vraiment muy ñëpp xam ni jaraaf surtout ah rendre hommage jaraaf bi nga xam ni dernier acte bi ñoo ko posé pour mu mën a génn c'est très important maintenant je crois que au-delà de tout ça nag jàngat la par rapport à nos représentations euh, au niveau des institutions internationales mm-hmm. hein au-delà de tout ça donc jàngat un peu comment le Sénégal devrait en tout cas être représenté au niveau international ba nga xam ne tamit yenn gàtt-gàtt war nañ ko mën a moytu mhm. ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy toogal foofu jërëjëf Babacar kon ñu présenter rapidement suñu gan yi ku ci njëkk moom moo di As Mamoun Sey moom euh, tamit ci jaraaf la bokk suñu doyen la euh, moom nag euh, mun naa ne sax maanaam bu muy nekk fële ca jaraaf nekkoon kii di secrétaire général lu président Lamine Diack xam nga Lamine Diack nekkoon dafa président moom nekkoon secrétaire général su ma juumulee sax moom As Mamoun bu muy dugg jaraaf c'était en 1977 waaye lu ci munti am dina ma ko gën a leeral Asma Mamoun maa ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay ci plateau bi. jërëjëf Cheikh maa ngi lay siyaare bu baax di am mbégte aussi suñu jàkkaarloo ci invitation bi euh, c'est vrai euh, man toute ma vie c'est le jaraaf de l'école déjà en 68 j'étais spectateur debout avec ah les vieux camarades Louis Gomis et consorts à l'école Médine j'étais à Dantec Après, j'ai fait deux ans ou trois ans à Djibouti. Je suis revenu à la polyclinique. Je ne connais pas un autre club. Bien que Mbaye Jacques va dire, mais tu es de tout fils, j'ai grandi comme ça. Lamine, en dehors du fait, Lamine a été deux fois président de ce club, c'est le seul. Mm. Non seulement président du club, mon club de cœur et de raison, mais Lamine, c'est le Parce que Tengue, Djele Sokhna, Diab Gay, Domi Massata Gay. ñoom Bafa Gueye ànd ñoom Porkes ñoom Ñaaña Gueye Ñaaña Gueye qui a eu un enfant avec Badou Gueye donc c'est c'est un ensemble assez homogène on a grandi comme ça mais euh, dinañ si ñëw ci waxtaan wi. bien sûr les bi nga tudd si jaraam ak les autres communauté organisées. ak le président Cheikh sec li mu ci def li mu ci dox ak li mu ci wax. jërëjëf su ma juumalee sax le président Cheikh Seck demoon na ci accueil bi te c'est important tey quand même un membre du Jaraaf teew parce que ñoom moo bu ma juumalee acte final bi ñoom ñoo ko posé donc baax na ñoom tamit ñu teew ñu wax ñu pourquoi donc ñu posé li ni mel comment s'est la processus loolu yëpp euh, dinañ ci waxtaan ba tey ci suñu gan yi ñu ngi dalal tamit kii di ab Ablaye Thiam nekk président ANPEJ xam ngeen ko moom tamit euh, kum ku kër gi miin na ko lool di ku baax di ku koo xam ne saa yu ñu ko woowee rek vraiment lépp lu mu jàpp da koy bàyyi mu fas ne ñu ànd ak ñun ci waxtaan bi ndax jàngat yoo xam ne war nañ ko ci war a def di ay jàngat yu am solo euh, te yaakaar naa bu ñu ko bàyyi kàddu gi ci kanam laaj ko dinañ xam lan moo tax ñu woo ko ci plateau bi Ablaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay seex di nuyu waaw donc euh, tey moom dañu am mbégte ak contentement bu rëy c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être à la 2STV la maison de mon propre grand frère El Hadj Ndiaye mais le plaisir encore est presque libération de Lamine Diack je viens de voir les images muy koo xam ne papa la ci man kilifa la ci man di référence ci man euh, yóbbu na ma fu nekk defal na ma lu nekk dama ko respecté jëlee ko comme référence te loolu du musa deñ mhm. je sais aussi ce qu'il représente parce que gis naa ko à l'œuvre euh, su fekkente ne danga nekk nit ku ñuul soo gisee Lamine Diack da ngay am fierté wax dëgg yàlla du chauvinisme du dara euh, je suis journaliste je suis tenu par les faits dina ci ñëw dinaa si wax li ma ci xam. lii lañ doon ñaan yàlla parce que c'est quelqu'un qui a servi l'athlétisme pendant 39 ans. 39 ans soo ko jëlee ci âge sama âge il reste plus rien. donc euh, peut-être mun naa wax ne il n'a jamais eu le temps de s'occuper de ses enfants. il aurait souhaité de terminer sur un rocking chair ou un hamac. à côté de ses petits-enfants, ses petites filles, en train d'écrire ses mémoires parce qu'il en a. Sur le plan politique, les gens reviendront là-dessus, sur le plan sportif. sport bi aussi il n'y a pas que le football il faut parler d'athlétisme gars yi mun nañ ko wax gars yi mun nañu wax handball donc c'était un athlète plein diplomatiquement parlant sur le plan de l'administration aussi locale tout le monde sait ce qu'il a eu à représenter donc c'est une très grande fierté pour moi tey ma gis ko mu ñibbisi Euh, ici au Sénégal surtout weeru koor ak lu mu mënta représenté yëpp musul woor feneen fudul Sénégal. Mhm. ce sont cinq dernières année compte de la situation bi ñu xam moo tax la Lamine Diack umeewul fii ci réew mi. troisième mbégte bii nag mooy nit ki tamit loo mënta am faut pas nga fàtte démb moi je suis un pur produit du groupe Sud Communication su ma toogee ak euh, Babacar John dama ko war a wax. parce que bi may ñëw sud ñoom ak ñoom Bakary Domingo Mané Demba Ndiaye Madior Fall ndem si yàlla Babacar Touré Abdoulatif Coulibaly Abdoulaye si la ñoom ñoom ma tete je suis sorti fraîchement de l'université ma ñëw euh, c'est pas à cette époque-là où tout le monde débarque avec son ordinateur il y avait des moom xam na ci dara euh, pour nga bind sax euh, c'était il fallait faire la queue c'était très difficile mais tete nañ ma j'étais pigiste j'étais reporter, j'ai été chef de desk, j'ai été chef d'édition, ba aujourd'hui rédacteur en chef. donc lu ci munta am aussi c'est grâce à eux. ñoom ñoom moo woon yoon bi maa ngi leen si delloo njukkal di leen wax euh, jaajëf. Grand Baye Jacques aussi quand je commençais quand tu viens au stade forcément on te di si si tu vas au stade. <laughs> les Mbaye Kassé ils te disent va voir tel va voir tel il en faisait partie. moom ak. Euh, Babacar Khalifa Ndiaye ak euh, Oumar Ba aujourd'hui quand on parle de Lamine Diack on parle de l'athlétisme on peut pas ne pas parler de Oumar Dia Mamadou de suite kii moom c'est une très grande personne ressource que nous tous nous sommes journalistes mmh. euh, on aime bien ce qu'il fait c'est mmh. un avocat qui est une fierté de tout ce pays Asmamoun man bi may commencé déjà il faisait partie de mes de mes perso ressources donc ça fait un peu mal aujourd'hui que je ne le vois plus très actif dans le milieu il a été toujours là comme il l'a dit au Jaraaf de Dakar c'était c'était bien beau à l'époque euh, aujourd'hui le principal problème bi ñu am derby à l'époque quand ils étaient là mhm. il y avait quelque chose qu'on appelait un derby malheureusement avec euh, notre football actuel donc pour ne pas trop esthétique. J'ai l'émotion, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Mhm. On reviendra certainement dans les débats, Inch'Allah. Merci encore une fois, Cheikh, de m'avoir convié à ce débat. partagé Abdoulaye jërëjëf Thiam euh, wax nga ko sànq dañuy jox kàddu gi tamit euh, maître Moussa Sarr xam ngeen moom avocat wu Pape Massata la waaye nag il connaît beaucoup le dossier quand ndax. Euh, Euh, ndax client bi nga xam ne am na ko fa te mu ngi topp dossier bi moom tamit euh, moo tax baax na mu teew ci plateau bi nga xam ne dañ ko laaj ay mbir yu bëri ci avancement dossier bi fu mu ci toll lan lañ ci fas yéene def est-ce que dañuy bàyyi est-ce que dañuy continuer enfin bref dina am laaj yu yoo xam ne dinañ ko ko laaj euh, ci biir débat bi maître maa ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay ci plateau. waaw Cheikh maa mm, invitation bi mm, jàpp naa ne aussi initiative bu rafet la. Mm-hmm. Mm, ce n'est pas parce que nit nattu dal na ko. que dañu war a fàtte lépp li mu fi def ci lu baax ci àdduna nattu jombul kenn hmm. nattu nattu la rek ce n'est pas parce que tout tuumal nañ la que yaa def déedéet nattu la rek donc dañuy rafetlu tey malgré nattu bi yàgg na mais yàlla teggi na ko bi mu ko soobee ba dellusi na fii ñu ñëpp ñu bokk kontaan ci kon bu ngeen jëlee initiative ci plateau spécial delloo ko njukkal pour que sénégalais wax ci li mu def ci lu baax parce que en tout état de cause man xam naa ko ci seen ci seen laa ko xam d'abord mm. parce que je suis pas dakarois mm. je suis de l'intérieur du pays jàng université nekk avocat bëgg nag sport mm-hmm. ba jaral ma mu uti ci diplôme en droit de sport c'est ma passion ma passion c'est le droit et le sport kii dajaleñ championnat du monde de basket ma fayal sama bopp seetaani basket équipe nationale football dem naa fa à part Coupe d'Afrique may fayal suma bopp dem ma yàlla ma nattoo bugg sport du ma ci boole coow nag mais lu bëri daf may fekke lu bëri avion dañuy paas ma paas dem stade wàcc demat suma yoon jàpp suma jàpp. défendre également aussi Wakam tout ça enfin bref. nattu la dama bëgg sport dama bëgg sport. Euh, donc euh, président Lamine Diack dama ko xam ci seen d'abord muy autorité administrative di autorité politique di autorité sportive bu nekk fierté nit ku ne parce que ci moom laa njëkk a gisee ci lecture koo xam ne dafay def sport nekk intellectuel de haut niveau mm-hmm. loolu bëriwuloon mooy di jàng dem université nekk champion de France nekk génn école des inspecteurs des impôts de la France mm-hmm. donc muy fierté donc ci seen yàlla dogal nag ma ne avocat ba dugg ci dossier bi par le biais de son fils mm-hmm. en 2019 ma dem France doomam yónni ma ci moom ma seeti ko yendu ak moom journée lëm c'était la première fois ma rencontré ko vraiment ñu yenn di waxtaan ci lu bari mu wax ma jaar-jaaram yedd ma conseiller ma wax ma lépp donc muy c'est un grand monsieur quelle que soit l'épreuve man yàqin boobu laa am outre le nag dossier bi xam naa ko ko lire première page ba dernière page te idée bi ma ci am ci li ma gis man dara du ko dindi